إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون mbokk jullit yi ñi ngi sant suñu boroom subhanahu wa taala moo ñu bind moo ñu moom mboolem liy xéewal gu nekk ci ñun wala ci keneen ci moom la jóge ñu ngi seede na yàlla rek moo yeyoo ñu koy jaamu di seede na yonent yàlla muhammad jaamam la ba mu yónni woon ci ñun ngiree mu jàngal ñu nu ñuy jaamoo suñu boroom ñu ngi ñaan yàlla julli ci moom ak njabootam ak ñi koy roy ba ilaa yawmi diin di leen dénk ngeen ragal yàlla ni yàlla yeyoo ñu ragal ko ko ngalawaay góor-góorlu leen ba bis bu leen dee di dab fekk leen yéene gi nekk di jébbalul seen boroom bañ koo bokkaaleeg dara gannaaw loolu mbokk suñu xutbab tey bi mi ngi jëm ci yan ngëneel ak yan wareef moo nekk ci julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mbokk jullit xamal ni suñu boroom subhanahu wa taala daf ñu digal digal bu rëy boo xam ni amul benn ndigal bu yàlla waxee noonu ndax suñu borom dani yàlla day aki malaakaam ñi ngi julli ci yonent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam doo ko wax nag yéen jullit ñi julli leen ci moom ca ngeen ñaanal ko la nga xam ne mooy ak mucc moom bokk ndax bàyyi ngeen xel ndigal bu ñu yàlla jox boo xam ne nee na moom moo ko jëkk a def ala kulli xaal xamal ni suñu boroom julli ga muy julli cib jaamam mooy gërëm gëm koy gërëm ca kaw malaaka yee gën a tedd malaaka yi julli ga ñuy julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy ñun julli gi ñuy julli ci moom ca mooy ñaan yàlla subhanahu wa taala mu yokk ay ngërëmam ak xéewalam ci yenent bu mag boobu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam loolu moo tax ba mbokk jaam bi di julli ci yenent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam loole mi ngi jëkk a nekk roy yàlla ak i malaakaam jalla wa ala ci la nga xamee ni nii suñu boroom moo ko wax xamal ñu ko mu nekk loo xam ne lu màgg la dana doon luy lu ñuy mën a faye yonent bi ci coono bi mu daj ba jox ñu diine ji mottali suñu ngëm yàlla màggal la nga xam ne mooy suñu cofeel ci moom yëkkate suñuy daraja far suñuy bakkaar comme ni nga xamee ne nii noonu la nar a ñëwee ci xutba bi insha allah mbokk ñaareelu ngëneel bi nekk ci jaam bi di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mooy loolu zikrullah la amul kuy julli ci yonent bi lu dul danga naan allahumma salli mooy yàlla yàlla na nga julli loolu zikrullah la suñu borom nee na ay yéen jaam yi day leen may fàttaliku di ma tudd manit ma leen di tudd day leen ma sant bu leen ma weddi mbokk zikrullah day ëmb mboolem lu jaam bi di wax ca yàlla tax ak lu jaam bi di jëf ca yàlla tax ca la nga xam ni suñu borom yàlla moo ko digle mu bokk ci cant yi gën a mag loolu nag mbokk zikrullah boobee bokk na yi ci gën a kawe la nga xam ne nii mooy baril di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam zikrullah boobee ki di abi hurayrata nee na yonent bi alayhi salatu wasalaam day nee na suñu borom nee na ko man day maa ngi ci njort bi jaam bi njort ci man képp koo xam ne wéetal na yàlla yaakaar na yàlla dana ko baal dana ko yërëm ku mel noonu dana dajeeg yàlla ci loolu waaye maa ngi ànd nag sama jaam heure boo xamee ne nii mi ngi may tudd su dee daay wéet di ma tudd man yàlla danaa ko tudd ci sama bakkan su dee daa nekk mbooloo di ma tudd danaa ko tudd ci mbooloo mu gën mbooloo ma may tudde loole mbokk li suñu borom ne tudd leen ma ma tudd leen bu dul woon ak benn ngëneel nekkul ci zikrullah lu dul suñu borom yàlla di fàtte di di tudd turu aw jaamam cay malaakaam mbokk loolu yi ngëneel bu rëy la looloo tax yow mi bëgg siiw ngalawaay xamal ne siiw ci àdduna amul njëriñ ñi gën a bon ñoo gën a siiw ci kaw suuf fexeel ba bokk ci ñi siiw ci kaw asamaan yi nan ngay siiwe ci kaw asamaan mooy baril zikrullah heure bay def zikrullah ci kaw suuf saw tur ña ngi koy tudd ca malaaka ya mu ngay siiw ci kaw asamaan ya loolee kon ku ne ci ñun war a bàyyi xel ci loolu ñetteelu mbir yi mbokk julit xam nañu ne suñu yonente sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñun ñépp gëm nañ ko ci gisuñu ko yonent bi daana wax ni dana am ñu ñëw sama gannaaw suñu mënoon a bàyyi seen njaboot yépp gannaaw bàyyi seen alal yépp gannaaw ca jàkkaarloog man gis ma rek moo leen gënal loolu lépp yàlla nañu yàlla boole ci jaam yooyee waaye nag mbokk julit yonent boobu doo ko gis ba baa ngay faatu abadan beneen jaamu yàlla yëpp gannaaw buñ ko dugalee ci xabaroom ba dootu ko gis ba ba àdduna tukki abadan képp koo ngeen dégg mu ne yonent bi ñëw na toog ak moom bu leen gëm loolu mbokk julit imma seytaane moo koy foye wala moom ci boppam muy wax lu ko neex di foye jaamu yàlla yi abadan amma suñu borom yàlla subhanahu wa taala defal nañu loo xam ne gisuñu yonent bi yonent bi gisuñu mi ngi noonu yonent boobu nga xam ne sallallahu alayhi wa sallam toog na ak sahaaba yi ne waaye ak a neexoon yàlla wan ma suñu doomi ndey sahaaba yi na ko ah ñun duñu say doomi ndey mu ne déedéet yéene samay sahaaba samay doomi doomi ndey yi mooy ñiy ñëw sama gannaaw sahaaba yi na ko waaw noo leen di xàmmee yowmal qiyaama mu ne maa ngi leen di xàmmee seen melokaanu njàpp amma ñun suñu rajo yeeg télévision bi sëñ jëw ñëw na yéen doog yonent bi ñëw na yéen doog sëñ jëw fii fanaan ak sëñ jëw fii ganekee une semaine loolu mbokk suñuy wax la amut yonent bi alayhi salaatu wasalaam gisul ñu ñëw gannaawam yowmal qiyaama la leen di gis waaye suñu borom yàlla subhanahu wa taala ngiree seral xolu julit ñi ñëw gannaawam ca la def mooy bépp jaam boo xam ne dangaa nekk ci kaw suuf ne allahuma salli ala muhammad julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam suñu borom am na benn équipe de journaliste malaaka yoo xam ne ñi ngi wër àdduna yépp lan mooy seen seen rôle ci kaw suuf mooy fu nit ne allahuma salli ala muhammad ñu daal di ñëw gaaral ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sahaaba yi na ko ah yum yàlla yónni nuñ lay gaarale suñuy julli ca fekk yow seey nga ci biir suuf mu ne déedéet yàlla araamal na ci suuf mu lekk jëmmi yonent yi amul koy julli ci man lu dul yàlla delloo ma sama ruux malaaka yi ñëw ne ma ah yow day Fat Njaay ma ngay julli ca yow ca Sénégal kay di Moodu Caam ma ngay julli ci yow ca Portugal su ko defee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom it ñaan yàlla yàlla julli ci yow kon jullit bu mi ngi noonu foo jullee ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam gaaral nañ saw tur yonent yàlla bi moom it mu tudd saw tur ñaan yàlla mu julli ci yow loolee suñu borom yàlla mi ngi ko defal ña nga xamee ne nii ah dañoo ñëw gannaawam ci gisuñu ko sallallahu alayhi wa alihi wa sallam loolu taxoon na mu daan ñaan yàlla ne ko ay yàlla sama xabru bi bu ko def mukk dajekaay bu nit ñiy daje di ko def jaamukaayu yàlla na am loolee ndax gis na yonent yi ko jiitu woon ñu defal leen ko mu ne ay yéen jaami yàlla yi jaarul ngeen di déplacé di dox lu sori ngir julli sama xabru fu ngeen mën a nekk rek julli leen ci man fu ngeen mën a nekk julli julli gi dala yegg si ci man ñaan googu yàlla defal na ko ñëwal Sénégal am nañ 590 daje yu ñuy dajeel ngir sëñ diw ngir sëñ diw moo gaa yi ndax ba ngeen juddoo ba tey mas ngeen dégg daje bu ñuy dajeel yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ca Madina daje bu ñuy daje ne ngir yonent bi di rang ca xabru ba di rayante ca xabru ba ngiree tey mooy bisub yonent bi sallallahu alayhi wa sallam abadan loolu amul ñaan la bu ko yàlla nangul ndax loolu bunt la ci shirk ca moom bëggul nekk bunt boo xam ne day jéeme nit ñi ci shirk ay yéen bokk jurit yi bokk na ci ngëneel yooyu ba tey la nga xamee ni nii xuseynu ibnu ali ibnu abi talib bi sët direct ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ko nee na yonent yàlla bi day nee na aji nay dëgg dëgg dëgg mooy koo xam ne dégg na saw tur ci julliwul ci man kooku mooy ki nay ca mbokk nay ku sori ajjana la looloo tax ba ab julit heure boo xamee ne nii dégg nañu tudd yonent bi sallallahu alayhi wa sallam war naa wax sallallahu alayhi wa sallam loolu amul benn julit boo xam ne góor ak jigéen war nga koo réere sallallahu alayhi wa sallam yal na yàlla julli ci moom ca musal ko mi ngi noonu donte ni la gënoon a mag sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na yàlla julli ci moom ak njabootam ca muccal ko waaye mi ngi noonu loo mën a julli ci moom jullil ci moom heure boo déggee aw turam mbokk juróomeelu ngëneel yooyu xamal ne bokk na ci julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu dafay doon luy matal sa ngëm ngëm yàlla mooy topp ndigalam ngëm yàlla moom mooy topp la nga xamee ne nii mooy ab yonentam ca tudd gi ngay bari tudd yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sa xol loolu dalay fàttali la nga xam ne mooy diine fàttali la yonent boobee ba nga bëgg a nekk ci ñi koy roy bëgg a nekk ci ñi koy topp bëgg a nekk ci ñi ànd ak moom noonu kon lay nekk di suuxat sa ngëm heure boo nekk di julli yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mbokk julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam it day firndeel la suñu borom ni li tu'minu billahi wa rasuli wa tu'azziruhu wa tuwaqiruhu mooy yonent bi dañ koo war a màggal jox ko cër jox ko respect looloo tax jullit di toog di ñaan ay yàlla yàlla na nga julli ci yonent yàlla bi julli ci ak njabootam ila axiri foo tollu di ko def mooy kon jox nga ko cir màggal nga ko gën jaa màggi màggal ci loo xam ne yow defaloo ko sa baay defaloo ko sa yaay loolu mbokk da ngay gis ne ku ne ci ñun heure buy taxaw ci loolu loolu day yokk la nga xam ne ni mooy ngëmam juróom-ñaareelu mbir mi mbokk jullit yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci loo xam ne abdullah ibn masud wax na ko nee na yowmal qiyaama day jaam yi may gën a jege mooy ñi ëppoon li ñu julli ci man ci kaw suuf ñooy jaam ya nga xam ne ñoo may gën a jege loole xadis bu wér la Tirmisi soroo ko moo wéral ko kii di albani juróom-ñetteelu mbir bi mbokk jullit xam leen ne day julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafay doon sabab boo xamee ne nii suñu borom yàlla da ci yëkkati darajay jaam di far ay bakkaaram looloo tax mu daal di rot ci xadis boo xam ne xaadimu rasul moo ko solo anas ibn malik radiallahu anhu mu ne yonent bi salallahu alayhi wa sallam nee na képp koo xam ne julli na ci man benn yoon yàlla dana julli ci yow fukki yoon daa di faral la fukki bakkaar daa di la yëkkati fukki daraja loolee an-nasaa'i solo na ko wa saxahu al-albani lii kon mbokk gis ngeen boo jullee ci moom fukki yoon yàlla julli ci yow téeméeri yoon boo jullee ci moom junni yoon yàlla julli ci yow fukki junni yoon lim boo julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla julli fukkam ci sa kaw juróom-ñeenteel ba mbokk jullit xamal ne heure booy ñaan te bëgg say ñaan nangu ñaan yooyee boole koog julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ca mooy dina ni jaam bi heure boo xamee ne nii yaa ngi ñaan suñu borom yàlla nee na ñaan leen ma ma wuyu leen ñaan yooyu nag am na ay sabab yoo xam ne moo koy lal waaye bokk na sabab yi ci gën a mag mooy la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ca mooy baril di julli ci moom sallallahu alayhi wa alihi wa sallam booy ñaan yàlla taggal yàlla subhanahu wa taala gannaaw ba nga julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gannaaw ba nag nga doog a ñaan la nga xamee ni ni moom mooy say soxla incha allah fokk yàlla subhanahu wa taala dana la wuyu mbokk jullit da ngay gis ne bokk na ci fukkeel ba ca moom lañ cay mujje mooy ki nga xam ne mooy ubay ibnu kaab dafa ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne man de ay yemi yàlla yónni bari naa su may ñaan di julli ci yow waaw léegi ana ban kem nga jàpp ne moom laa war a julli ci yow yonent bi ne ko ah loo ci def rek muy ngëneel ñeel la mu ne ko ma jël ceer ba mu ne ko boo ëpp boo yokkee it mu gën ci yow ma jël genn wàll ga boo yokkee mu gën ci yow mu ne ko kon xaaral rek man daal soxla bu may ñaanati naa julli ci yow rek sama ñaan yépp naa ko def julli ci yow yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ne ko kon dey yàlla dana la faral say bakkaar yàlla dana la teggil say tiis looloo tax ba ngallaawaay jullit heure boo nekkee ci njàqare heure boo nekkee ci tiis heure boo nekkee ci mbir moo yaakaar baril di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ca caabi yi gën a màgg la bokk ngiree dàqal la tiis ak njàqare ngiree ñoddi la la nga xam ne ni moom nga yaakaaroon mbokk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nañuy jullee ci moom loolee bari na riwaay yi ci ñëw bari na bokk na la gën a gàtt mooy allahuma salli ala muhammadin wa sallim bokk na ci loo xam ne sénégalais yépp mën nañu ko ca mooy li daq ci làmmiñu sénégalais laa ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam doonte ne léeg-léeg nga dégg fat càmmam bu wax day yéemu laa ilaha illallah muhammadu rasulullah fekk daa yéemu déedéet bokk julit loolu zikr bu màgg la yaa ngi boole zikr bi gën a màgg mooy laa ilaha illallah muhammadu rasulullah saxal na yonent yàlla la sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yàlla mas na def ma mas a romb benn jàkk ci géejawaay jullee fa takkusaan jàkk bu ndaw sax waaye imam bi bi mu paree mu ne ay yéen nit ñi bari leen di tudd yàlla bari leen di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xëy suba rek di wax lu amul bopp amul genn ca heure boo waxee tey laa ilaha illallah xoolal zikr boobu muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam xoolal ngëneel yooyu ndeysaan góor gi di wax bay jooy xaw ma mi ngi dund xaw ma dund léegi loolu jege na fanweeri at yal na yàlla jéggal ko ca yërëm ko waaye loolu di risaala boo xam ne nii ñu ngi leen koy jottali ngal la waay julit foo toll atelier ba marché ba waañ wa usine ba foo mën a nekk bari lal laa ilaha illa allah muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam laa ilaha illa allah muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ngeeneel ba ci nekk kenn mënu koo takk loolee mbokk zikri ci ñëw bari na danaan ci indi benn rek boo xam ni suñ téere yi fi jëkk ñëw moom lañ doon jàng ñu bari bi ñuy jàng taaye loolu lañ jàngoon ca mooy yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñëw na ci kër Saad ibnu Ubaada daje fa ak saxaaba yi ñu toog di waxtaan ba mujjee Bachir doomu Saad daal di jóg naka ayumi yàlla yónni suñu borom nee na ñuy julli ci yow naka la ñuy jullee ci yow yonent bi ne teg ba saxaaba yi ne ki daal waroon na ko bañ a laaj lii gannaaw ba yonent bi ne ko da ngeen di wax allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد loolu da ngay gis ne ci xadis yi gën a wér la bokk su ko defee yow mi nga xam ne nag yaay ndawal sunna yi gëstu xadis xam nañ ne ay siixa yu dul jeex am na ci yu bari waaye lépp génnul salaatu ibrahimiya mooy ba ca gën mooy julli ba nga naan allahuma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama salayta ala ibrahim ak différence mooyu tuutee ca nekk loolu mooy julli gi gën lii la yonent bi jàngal ay sahabaam am maa nag boo guddee fan déglu rajo yeeg télévision yi am na téeméeri salaat yoo xam ne nit ñi créé nañ ko gannaaw ba loo xam ne yonent bi musu ko dégg ay sahabaam musuñu ko dégg ca jàpp nañ ne loolu mooy salaatu bi gën bu ñuy jullee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na ñu ci xaabaabal sax ba ne salaatu boobu moo gën alquran mbokk loolu déedéet jullit gëmal ne bi ngay taaya salaatu boobu yonent bi doon taaya ay sahabaam di ko taaya fuqaha yi bind téere lislaam bind ko seen téere ñu koy taaya mbokk salaatu boobu nan la ko salaatu di mën a gënee munta nekk boobu mooy bi gën jàppal ci boobu gannaaw loolu mbokk jullit gis nañu ni bokk na ci ay place yoo xam ne nii it jullit dafa war a xam ni jullit ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam foo mën a nekk yoonal nañ ko waaye ñu gën koo yoonal nag heure boo déggee nodd heure boo déggee aji noddkat bi àndal ak moom ci nodd googee su paree jullil ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam gannaaw ba nga ne yàlla yàlla na nga may yonent yàlla muhammad al wasila lii ku nekk ci ñun góor ak jigéen war na koy bàyyi xel ànd ak noddukat bi ci li muy wax julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñaanal ko la nga xam ne mooy al wasila ñaareelu place yi mbokk jullit mooy lii nga xam ne mooy bisu àjjuma bi yonent bi alayhi salatu wasalaam nee na xam leen ne bis bi gën a màgg ci semaine bi mooy bisu àjjuma wax nga nil yu bëri yu ci nekk ci àdduna ak alaxira mën a ngalawaay bari leen bisu àjjuma di julli ci man ey yow mbokk ñi ngi nii bisu àjjuma tey lenn ci borom xam-xam yi dem nañ ba ne nga toog baril julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo gën nga toog jël sa kaamil alxuraan di jàng ndax la ci yonent bi alayhi salaam wax kon ajjumaa ngi nii jullil ci yonent bi cent fois deux cent mille fois loo man ci julli yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci xam ni julli gu nekk ay ngëneel la lay ñeel sa kanamu borom jalla wa ala mbokk jullit bokk na ci loolu ba tey heure boo xam ne dégg nga aw turam ngalla waaye comme niñ ko waxe sànq yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na képp koo xam ni dégg na saw tur ba pare julliwul ca man kooku bu sàgganee ba loolu tàbbal ko sawara yal na ko yàlla soril mën a amin amin amin mu bokk ci loolu ba tey it bokk julit yonent boobu daan nañu wax ay julit de du ñu daje ci benn place wax seeni soxla àdduna ba mu jeex ñu dem ca kenn tudd fa yàlla kenn julli fa ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu dul loolu nekk pertaa nga ci ñoom yowmal qiyaama looloo tax yow jullit góor ak jigéen foo toog di waxtaan foo toog di lu mën a doon ngalla waay say làmmiñ léeg-léeg nay def zikrullah di tudd yàlla day def di tudd yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amma bu doon dañ ko wax nag ci mbooloo mu mu gën a baaxati encore comme niñ ko jàng ci hadis bi ci kaw su ma tuddee ci mbooloo ma tudd ko ci mbooloo mu gën ca mooy biir waxtaan bi ñu naa comme ni ko yàlla waxe ci alquran comme ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxe waaye tey da ngay gis loolu lu néew la lu tumuranke la tey ci la nga xam ne mooy jataayu jurit ñi bokk na ci loolu ba tey yonent boobu sallallahu alayhi wa sallam heure boo xamee ne nii yaa ngi bind aw turam nga daal di bind sallallahu alayhi wa sallam loolee borom xam-xam yi dañ naan ñi ngi rafet njort na tànk mbind moomu ma nga fa sa tuyaaba mi ngi continuer di sax mu am loo xamee ne nii it borom xam-xam yi dañ koy moytuloo mooy di ko bañ a tënk mi ngi noonu da ngay gis ci njàng arab bu ñu bindee yonent bi alayhi salaam dañuy bind rek benn sood de kese boo demoon ci njàng français dañuy bindee PSL PSL sur lui mbokk loolee da ngay gis ne mbir la boo xam ne borom xam-xam yi dañ ñu gënul la nga xam ne mooy gën ëppal la njëriñ adduna ak alaxira mooy foo bind turu yonent bi alayhi salaatu wasalaam bindal sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bind ko mu daal di mat sëkk ñaan yàlla mu jëndal ko même boo koy bind en français bindal paix et salut sur lui bañ a defar PSL loolee kon mbir la moo xam ne ñu bàyyi ko xel bu baax bokk na ci it bokk ci loolu heure boo xamee ne yaa ngi julli néew xamal ne julli néew ñeenti parti la benn parti ba allahu akbar fatiha kese la ñuy jàng suñu borom moo ko moom ñaareelu ñaareelu kabbar ba allahu akbar yonent bi alayhi salatu wasalaam keese moo ko moom ñu ñaanal ko moom ak njabootam ñetteelu parti bi néew bi lañ koy jagleel ñeenteelu parti bi ñu jagleel ko suñu bopp ak jullit ñi kon képp kuy julli néew xamal ne daa war a julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu bokk ci loolu itamit bokk jullit la nga xam ne moom lañ cay place bañ cay mujj wax mooy ci gën a am solo mooy yow mi taaya ngallaawaay buy julli di taaya ba taaya bi jeex xamal ne da ngaa war a wax la nga xam ni maa ngi jublu taaya bu jeex fi ngay waxe ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah abduhu wa rasulu la nga ca war a teg mooy allahuma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallayta ala ibrahim wa ala ali ibrahim ba baa niñ koy waxoon ci biir xutba bi même bu doon te ne da ngay gàttal ci ne wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh nga ne sallallahu alayhi wa sallam doogu sëlmal waaye benn jullit warul julli ba pare ca julliwul ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam benn waaye ñëw na julli ba pare yonent bi naa kii de yàkkamti na julleem ki lu tax mooy julliwul ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne kenn ci yéen buy julli bu taggee yàlla ba pare ba taaya na ko na na na julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mbokk julli ci yonent bi mi ngi nii di benn siwo buñ leen tànqal ci géeju ngëneel yi ca nekk ngir gàttaayu xutba bi nañu xam ne ci ngëneel yi gën a màgg la bokk muy loo xam ne dalay jàngalit ne mbokk jullit yonent bu màgg bu tedd boobu suñu borom ne nañ ko ñaanal loole day wone kenn du ko ñaan képp koo dégg mu naan yaa muhammad ca loolu néew na loolu nga gis ko fakkastalu ne yaa muhammad déedéet yaa cheikh kay yaa sëriñ nangam yaa nangam déedéet mbokk muhammad sallallahu alayhi wa sallam kenn du ko ñaan dañuy ñaan yàlla subhanahu wa taala kay wàcce ngëneel ci moom waaye jullit yàlla kese lay ñaan waaye it mu lay déggal ne ndegam yonent yàlla bi la ñuy ñaanal ndax waruñoo ñaanal sëriñ si ñëw gannaawam ca loolu seytaane màggal na ko ci bopp nit ñi ba kenn ñemeetu ko ana kan moo ñemee taxaw ci mbooloo daa dina sëñ diw yàlla na yàlla jéggal ko yërëm ko boo moytul daañu la dóor ba ngay bëgg a dee loolu mbokk ci seytaane la jógee ñi ngi ñaanal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ñaanal ay mbokk yonentam di ñaanal sahabatul kiram lu tax ñooñu nga xam ne dañoo jortu rek ne yàlla gërëm na leen kenn amu ci yaqin dañoo jortu rek ne yàlla gërëm na leen lu tax duñ leen ñaanal loolu kon mbokk mi ngi noonu sax leen ci salaatu ala nabi baril leen ko jàngal leen ko seen njaboot allahuma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallayta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidun majid allahuma barik ala muhammadin wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidun majid subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin